بسم الله الرحمن الرحيم بشر الله تبارك وتعالى سوار ناتم هذه القصيدة وخيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام الشاشن السلام عليكم ورحمة الله ينبقي بايقل دكار لايف تي في dellu si nañ ci di leen nuyu di leen siyaare bu baax di leen ñaanal koorug jàmm fas yéene di leen indil seen naafilay yi weeru koor ngeen koy ànd ak oustaz Moustapha guddi gi njëkk ci weeru koor jëri nañ ci qurratul ayni mu wax ni ku ci julli fukki rakkaa rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatihatul kitab ba mu jeex te mooy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ba saar wa jeex benn yoon teg ca inna anzalnaahu fi laylatil qadr ba saar wa jeex ñaari yoon teg ca qul yaa ayyuhal kaafiruun ba saar jeex ñaari yoon teg ca lixlaas te muy qul huwa allahu ahad allahu samad ba saar jeex ñaari yoon ba fukki rakka yi mat nii nga koy toppe mooy rakka bu ci nekk nii ma wax lees koy defee ba muy fukki rakka di juróomi sëlmal mbokk yi sëriñ Suhayb wax ne ku julli-julli gi yàlla dana xaraamal yaramam ci sawara te su noppee bu ñaanee boromam subhaanahu wa taala dina ko nangu faj aajoom ñu ngi ñaan yàlla na yàlla nangul leen te nangul ñu te boolu ñu yiwuy darajay sayiduna muhammad sallallahu wa sallam maa salaam bismillahi بشر الله تبارك وتعالى سوارنا بهذه القصيدة وخيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام السسن